maîtresse d'un homme marié ah toj na dëkk xam na ñaar waa lii tam dëgg la ah Marème lii tax ñu ne xarit amul de ndaxte tey jii nii koo gën a wóolu ko koo gën a yées daal waroo def doomi aadama confiance ndax wóorul trahison bi lan moo ko gën a metti ci àdduna teg la lii ba tey say wujj jot ci metti na lii moom bu ma dee yow moom damay def lu raw xam laa ilaha illallah du ma dootul maag Cheikh Diagne laa la wax ah Marème nag laa la na ndam ndam bu mét ndam bu rëy sax ndam bi ak rëy laa ilaha illallah ay Marème. salaamaaleykum nuyu naa leen ziar leen mbaa yéen a ngi ci jàmm bu baax a baax man de tey sax dama boole moom ñaari bi ak naq ak daal xarit daal ku yebu moom. kenn bañu caa ut man daal li may wax xarit bu ko kenn bañatee ut ndax li moom yeena ku nekk ndax jël xam léppam ba pare jëlaat ko teg ko weer ko man sama xol bi sax a jeex tàkk tàkk tàkk sama xol bi jeex na wallaahi ndax lu mel nii bindu naa ko ba lu mel moom moo ma ko yóbbee ku yëpp daa bàyyi xarit daal laa ci xam. waaw asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa leen di ziar yéen ñëpp di leen jox seen mais aussi tamit dama bëggoon participer ci euh, maîtresse de no mariés c'est parce que man euh, dama buggoon xam exactement euh, diggante Tapha ak Racky donc lan la mën ban njàngat la ci doomu aadama yi mën a am c'est parce que c'est parce c'est parce que c'est parce que dama jàpp ni Racky bon dafa dem kër Tapha Euh, maanaam dama bëgg xam est-ce que dafay dafay làqatu foofu ou bien non aussi tamit euh, euh, Moustapha dama gis ni dëkkul ak dëkkul ak ak ay parents am donc du yaay du rak du mag moom kot ak boppam rak yi am na lu ko metti aussi tamit mu dem dëkk ak tafaa c'est parce que Tafa copain am la donc damay ragal est-ce que loolu noonu geste boobu rak yi def. est bon du pousser du pousser si xale bu jigéen mu maanaam bu vierge maanaam am am am comment mu am problème ak famille am mu def comme ni rek def comme maître d'un homme marié yeete la donc mu buggoon participer si loolu waaw ok ngeen nekk si jàmm. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu leen gërëm di leen sant ah théâtre tiyaataru tey bi moom neex na amul ni mu neexewul waaw waaw waaw la moom tey moom tey moom chapeau chapeau la waaw nii la de wujju daal moom jaruta ragal jaruta daw waaw bokk wërsëg doonga la yàlla leen boole waaw noonu la euh, ma ñëw si Jalika nag Jalika nag moom euh, xale bu góor bi moom dakaa bëgg waaw defal doo nga sëy ak moom waxu yaay ji moom bu ko sax bu ko sax faale waaw comme moom daal bëgg na la ba mu ñëw ci yow wax ak yow njekk ak teraanga yow tamit amal sa ngor nga sëy ak moom te yàlla tax bul xool gannaaw bul xool kanam waaw bëgg ko rek te yàlla tax yàlla jubóole leen ngeen sëy seen sëy bu neex waaw jàmm ngay am loo nekkal si jàmm moom théâtre tey bi moom wax dëgg si yàlla aussi ah kontaan naa ci moom de ah cum noonu la de waaw waaw àjjana moom noonu la waaw demal nga jëndal leen kàddu gu toj nga jox ku nekk Sénégal jëm kanam bisous à tout le monde. asalaamaaleykum Xew TV maa ngi leen nuyu seen théâtre bi am na solo trop neex na di la wax ne la bég naa ci yow bég naa ci yow tey moom. ni nga def noonu la aawo nii lay def aawo nii lay def yaatalal ñëpp ndax kër gi neex vraiment kontaan naa tey si yow torop torop torop torop laf cat lii moom na continuer ba faw waa asalaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié waaye ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen dox seen waajuwaay leen wax ne ah macha allah film bi neexati na woneeti na boppam aaway daal waneti nañ seen bopp moom macha allah lii daal mooy wane ni aaway moom ku la mag rek ëpp la saga xam nga ne laala bi mu ñëwee def jàmm rek xamal ne am na pexe bu mu lal dégga ñaareeli gis nga leen de lu ñu baax baax baax am na lu ñuy nëbb ci biir lu ñu baax baax rek am na lu ñuy nëbb ci ku leen xool ba loxo mboot leen xam ne am na leen leneen lu nekk ci biir waaye macha allah macha allah film bi neex na trop yàlla fi yàgg merci salaamaaleykum waa Louga TV maa ngi leen di nuyu waa fili waa fili lii lu mu doon waa fili lii lu mu doon ay ay ay doy na waar waa yéen fili kii fu mu nekkoon ba kii te loolu ñëw balaa Marème dugg ci sëy ba Marème dugg ci sëy bi fili kii du ñëw nii yéen tam ndeysaan ah ngeen di doggali rakku jàmbur nii <laughs> ah doy na waar doy na waar jalika jalika yokkal muñ jalika góor góorlul ji de bañu la de waa ji lu mu wax dafa leer de te man di bu la dangay ngay comprendre fu waa ji jaar waa lan la ah macha allah nii laa ko bëggee yaay sama xarit nii laa ko bëggee awo da da ngay gëm sa bopp mu defa di rek loola bett mën la mais nii laa ko bëggee sottuwaar bi nag moom moom moom moom sottuwaar bi moom li nga wax moom jeexal na wax mais. war ngaa mën a geesu xam lu andi sa bi ci loxo jabar ji waaw sa bi moom or bi moom lijjanti ko nag lijjante ko te li nga wax rek moo ci ne bañ a yëkkati ay cheikh ah kontaan naa bi nga la say jabar de mais nag moom hmm, lu ci aawa du ci ñaare lu ci ñaare lu ci aawa yàlla baax na kontaan nañu lool. moom dafa mel ni moom chaque jour dañu dégusté lu bees mais sant yàlla merci beaucoup. tableau bi tableau Marème depuis depuis le début maa ngi naan waaw mi ngi yor tableau def photom def ci benn point de d'interrogation amul photo amul dara loolu mooy lan may wër di wër di wër le pourquoi et comment. mais nag dañuy wax dëgg rek rek rek rek rek rek mais je boobu coofe na de <laughs> te bandi Marème Bandi na mais am na benn problème bu sérieux bu ñëw yàlla na ko yàlla euh, lalla yërëm rek li lañuy wax bëgg dugg foo warul dugg fekk nit ak jëkkëram nga ne yaa ko gën a bëgg ñëw yow ne yow yaa baax ci biir fami boobu ñëw xam këram ci biteem ci bite euh, ci biiram yépp dugg ci biir kër gi ba pare nga yow nga ne ah, fii baax na kon boog gis naa ci sama place ay ñun jigéen sénégalaises yi lu tax mënuñu gis jigéen nekk ak këram tranquillement ñi ne dañ koy bàyyi mu demal boppam pourquoi lii lañuy wax yàlla day fay tey day faj yépp buñ jógee ñi naan laala lu tax mu dof mais laala day dof koo xam ne yow danga nga jël sa avenir yépp teg ko ci sa jëkkër ci sa foyer beneen jógee jigéen jóge ci àll ñëw jàng sa jàng xamal la lépp ñëw ne fii la fii la baaxe mu ñëw toog ne jëm di ko defante ak yow ngeen yaakaar ne yàlla day nelaw ne naa leen marraine dina ko fay un par waaw beneen jigéen boo xam ne ni aw bu mer la aw bu mer la maa ngi door a comprendre point d'interrogation tableau marraine ay ci Sénégal nañ dem ba ci kanam rek dina neex de man biram laa gën a yërëm ndeysaan biram tamit li ko dugal ci vie euh, vie bi mu yàqu nii lu bare bare bare Euh, cause soi-disant moom moo rey papam mais je pense que Biram reyul papam je pense que Biram reyul papam te Biram xam naa ne traumatisme la am traumatisme boo xam ne dafay def en sorte que mu fàtte lépp te traumatisme bi dina dina dina commencer jóg parce que Pape Jalika ni mu neen yàqu naa am na am na souci daal parce que Biram bi ram xale bu xam lu bari la te xamu xamu ko ndeysaan parce que je pense que dafa traumatisme bi dafa def benn accident bu def bu def en sot que mu am traumatisme mu fàtte mais fur et à mesure film bi dina découvrir lu bari je pense dina découvrir lu bari bari bari te ñaareel yi bàyyi leen di ak euh, di tooñ euh, nu mu tudd. ci foofu di naan euh, awo bi dafa feebar ak lu tax muy lu tax mu ngi door a yeewoo ak lii lii parce que pilule bi neexutaa avalé parce que mënoo nekk sa biir kër yor sa jàmm yor say doom yor sa jëkkër ngay liggéey muy liggéey ngi at muy andi ngay andi muy neex say doom di neex sa jëkkër di doxaan di andi jigéen ci sa biir kër ba si bis sa biir lal xam lu nekk ci sa biir kër lépp ñu dem ba mu pare mu takk ko andiwaat ko ci sa biir kër nga ne ko du dof mais man logique bi laa comprendre tout moo tax femme Marème mi je suis désolée nga film buñ koy seetaan da ngeen di xool logique bi ndax loo xam ne bëggoo ñu def la ko bu ko ñaanal sa morom parce que balaa maa dee ñu naan waaw euh, Marème lii dafa bëgg jàmm waaw bëgg na jàmm bëgg na sëy bu bëggee jëkkër jàmbur man bu ma doon Marème sax te ma nekk ñaareel dama naan ko eh kër googu doo ma fa yóbbu utal ma fu ma dëkk loolu mooy logique mais yow fi nga xam ne jëkkër jàmbur fa la leen andi nga ne danga fay dëkk pour di def lan defante mais lu tax jigéen Sénégal yi jigéen Sénégal yi bëgg defante ñun suñuy problème mooy lan duñu faj suñuy problème jigéen mooy mooy feebaru jigéen dañuy wax suñu góor yi de mais ñun ñoo nekk dañoo soxorante entre ñun les femmes bëgg defante balaa maa dee jigéen balaa moo sëy sëyam neex il faut mu am wujj pour mu mën a defalante waaw aw bu fiir laa te yàlla bu ma am wujj te wujj bu ñëw sax dinaa ko defante ak yow ci xaj waaw maa ko wax maa ko wax de wujj bu mer laa depuis nee naa leen marraine du fa am jàmm il aura des soucis d'ailleurs sax passé maram dina ko ratrape ndax yàlla tëddul di nelaw maa ngi door a comprendre euh, point d'interrogation bi nekk ci photo Mariam bi maa ngi koy door a comprendre waaw parce que depuis lors maa ngi ut lu tax point d'interrogation nekk ci photo bi entre photo ak bosam mais maa ngi door a comprendre point d'interrogation bi che affaire tàng la ba pare di wax ni euh, Jalika Jalika wuu la la la moom. quelqu'un dama ko bëgg parce que euh, nit ko jigéen nii lay def jigéen bu mat gër la xam lu mu bëgg xam moom mooy kan am respect man je suis mariée mais euh, ma yàlla suba ma divorcé di am ay belle-mère yoo xam ne dañ may sonal comme sa naan xawma ay doomu jiite affaire yooyu non non non non mais Jalika dama fier ci moom amaat beneen sujet boo xam na tamit xaw na tënk sama bopp mooy biram biram ak ba mu gisee yaayu Racky <laughs> biram xam na lu bari moom it par rapport à euh, papam sax moom sax xam naa ni moom dafa ci dara ndax ba ma dékkee Papa Jalika naan yàqu naa laa xam lépp yaa anoot gis ni roche waaw hii film bi tey neex na neex na torop torop torop torop torop mais madame am na problème bu sérieux li la ñuy wax ci xarit gis nga dañuy da leen di bàyyi lépp lu ñu am suñu àddina di ko dénk suñuy xarit xarit neex na de waxuma xarit amul xarit neex na mais am na yoo xam ne sa papa daf ma yàgg di ne loo dencalul sa bopp kenn du la ko dencal waaw loolu mooy sama participation ci film bi mais maa ngi doon comprendre point d'interrogation bi fu mu jógee. ah Lou Xew TV man moom dinaa gëj a seetaan série bi ndax bëgguma fu ma di amee problème bu dol ni bii bii dafa ëpp loxo bii ah, bii dafa ëpp loxo bii plan bii dafa ëpp loxo ñu bare nag dinañ découragé parce que bii moom is too much te Marème moom jàmm rek lay woote liñ koy fexeel yépp moom jàmm la ku dóom ràcc lu tax ñu di ko def lii léegi cheikh moom li ko war mooy mu won leen dëgër bopp ak ñàkk jom won leen Marème bu doon doxee ni ko ndeyam juree ci mbedd bi sax jël na ko jël na ko jabaram la jabaram la yoonam nekkut ci li passé na seet li nekk ci diggante ak Mariam bam ko takkee léegi te mu bañ a gestu li paase parce que passeem lañ bugg a indi pour yàqal ko sëyam bi te nag Mariam ku gëm jëkkëram la seex na xam loolu. salaamaaleykum ñu xew TV yéen a gëj naa commentaire nag ci maîtresse mais tey moom damay commentaire ndax man daal bëggoon naa ñu dund série bi naturel man ay affaire bandi yi moom série bu ñëw rek moom nga fay gis photo ya wala da koy rey kidnappé na ko chaque jour man dama bëggoon ñuy dund rek wujj bi kase ñoom ñaar ñu nekk di defante lépp nekk naturel waaye buñ ci xasee dugal yi rek manem ba eh, xam nga ni kon laal la da koy gañe te loolu noonu noonu man man gën lu ma man damaa bëggoon ñu dund wujje bi naturel rek benn ba bañ cee rax <laughs> waaye nag doy waar gannaaw Marodi moom boo nee ne taay ji neex na ñu ne tànk lañ ko fóoralee moom ah nañ ko topp noonu rek parce que commencé nañ ko siiw moom buñ bàyyi man dama ne woon damay bàyyi maîtresse dama bëgguma la naqari ma mais xam naa ne moom Mère Diagne ak Lalla moom am nañ ndam dañuy gëñe lii dafa rëy waaye am saa mere naa ko mere am saa torop <laughs> kontaan nañ dégg nañ torop ah man de ba ma juddoo ba tey maa ngi jéggalu sax nuyoo ma ma ñëw rek dugg musuma gis lii lii moom kii maa ne na de est lii wujje jar na ko foog naa lii wujje jaru ko de dul wujje sax jarul lii waaye du ñu Sénégal moom suñu réalité dong la ñuy joué lu am na lu dëggu la ñun daal ñu ngi noonu daal yàlla nañu yàlla soppi daal. est-ce que Lalla lu muy def ne wujje jar na ko man fooguma ne wujje jar na ko wujje bay xool démbam di xool barki démbam ah man loolu jaaxal na ma torop torop torop bu doon mën la daal wax dëgg yàlla jaru ko de. jaru ko wujje jaal bokk wërsëg la mais fooguma ne lii wujje jar na ko topp xool démbam xool barki démbam loo xamante ne fu la ko def du la neex war ko def salaamaaleykum wa rahmatullah Maître Kheuss Doudou Marie kontaan ci yéen di béggee participer lenn laa bëgg a xam Marème Diagne maa ngi koy ñaanal yàlla yëkkati ko ak épisode bi di ñëw daanu na de waaye dina jógaat ci kàttanu yàlla ndax Mariam Diagne Cheikh Diagne mu lay wër du jàkkaar Cheikh da koy fase jamais de la vie kon day yomb Cheikh Mariam lay wër te Mariam it Cheikh lay wër du ko mus fase dañuy dal seeni plan di politique la ak xaritam ak yaayam ma Mariam cent franc maanaam dina jóg de épisode bii di ñëw dala fay xam naa ne dara léeg-léeg daal ma dem jógal sangu ba sa sa kanam face à leen doo seen moroom li ma nekk ci yow mooy da am fit te def na boo ci dara te ci dëgg rek ngay dox yow ma dem yow rek ci xale doo moroomu laal la ay pexeem dafa yaakaar ne ay pexeem jub. dara la mu warul bàyyi ko foofu muy politique di jaay tirise dara li ma ko xamal dafa war a ay naan ay garabam sax li nga ko wax dëgg la parce que naanul ay garabam te demul ay rendez-vous looloo ko jàpp.